الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مبك جلدي ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu boroom tabaraka wa taala ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem dénkaaneb ragal sunu boroom mooy dénkaaneb ñu jëkk ña ak ñu mujj ñi borom bi tabaraka wa taala nee na walaqad wassayna alladina utu lkitaaba min qablikum wa iyakum an ittaqullah nee na wàcce woon naa ci ahlul kitaab la leen jiitu yéen dénk leen ne leen nañu ragal yàlla nañuy dénkante ragal yàlla kon ragal yàlla mooy dénkaane bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mujj a dénk aw xeetam mooy dénkaane bi nga xam ne asalafu saalix mosuñoo daje ba tàqalikoo fi bërëb te dénkante wuñ ko mbokki jullit yi xutba bi kon mu ngi jëm ci al ictisaam bi sunna muy jàpp ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu waxee nag jafandu ci sunna jaadu na ñu xam sunna mooy lan ñu bari buñ nee sunna dañuy defe ne mooy li jàkkaarloo ak farata waaye loola dëgg la fuqaha yi danañ wax ne lii farata la ci julli gi lii sunna la ci julli gi waaye nag buñ xasee ne jàpp leen ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ci jublu mooy jàpp leen ci am njàngaleem njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam lépp nga ca biir léeg-léeg nga dégg ñoo xam ne bunt boobu leerut ci ñoom ñu dem bay wax naan li ñëw ci alxuraan mooy farata li ñëw ci xadis mooy sunna loolu ñàkk xam la bu dee sunna ci làmmiñu waroom xam-xami fiq yi nga xam ne ci biir jaamu yàlla yi lañ seddale ay farata ak sunna farata yooyu ak sunna yi ci alxuraan ñëw nañ ci ñoom ñaar ñëpp waaye ci sunna yit ñëw nañ ci ñoom ñaar ñëpp alxuraan ni mu amee yu ci nekk yoo xam ne farata la noonu la amee yu ci nekk yoo xam ne sunna la sunna it muy xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu amee yu ci nekk yoo xam ne sunna la noonu la amee yu ci nekk yoo xam ne moom it farata la kon di wax ne alxuraan indi farata sunna xadiis moo indi sunna loolu njuumte la waaye buñ nee sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag kooku mooy lislaam ci boppam buñ ne laa am njàngaleem mooy njàngaleem lislaam li ñu la sant nga war koo def ak li ñu la tere nga war koo bàyyi ak jikko yi nga war a jikko woo loolu lépp njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ciy dugg moo tax kenn ci waroom xam-xami lislaam yi day wax ne الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام الإسلام mooy sunna sunna mooy lislaam al imaamul barbahari moo ko wax mbokki jullit yi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dundam gépp da doon jàngale dundam gépp cim njàngale la nekkoon bu masaan taxaw ci minbar bi di wax ak nit ñi ma ngay jàngale moo xam minbaru ajjuma la moo xam minbaru jullik iit la waaye am njàngaleem yemul woon ci ñaari minbar yi jamono yu nekk biir jàkkaam ji daara la woon saa bu jullee ba sëlmal ma ngay jàngale saa bu toogee jataay nit ñi ñëw toog ma ngay jàngale diggante ñi koy laaj muy tontu wala mu di leen digal ñuy jëfe di leen tere ñuy bàyyi kon dundam képp aleyhi salaatu wasalaam am njàngale la loola moo tax li ko yàlla jot li woo digaloon mu jottali ko lépp jottali na ko ba mu mat sëkk diir bi mu fi am alayhi salaatu wasalaam gannaaw ba mu nekkee ab yonent yàggul ndax ñaar fukki at ak nàngam la waaye li ko ci yàlla santoon lépp jàngale na ko ci ba mu jeex te nag lam ko santoon mu di ko jàngale day du lu woyof du lu ndaw itam doy na sëkk rek nga xam ne alquranul karim ci boppam kaamil bi noonu mu tolli lépp jottali na ko waaye yëmut ca loola waaye jottali na ko ci geneenuk anam nan lañ koy xamee nan lañ koy jëfe ñi koy tuddee sunnaam nga xam ne li am ci ay xadiis boo ko dajale woon dana mat ay kaamil alxuraan yu bari yooyu yépp aleyhi salaatu wasalaam jàngale ko ci biir ñaar fukki at yooyu jottali ko aw nit dégge ko ci moom jëfe ko waaye yemul ci ñu déggee ko ci moom waaye mu koy jëfe ci seen kanam ñuy gis ci biir loolu ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jottalee lépp ba yàlla ne ko li ma bëggoon nga jottali ko day mat na al yawma akmaltu lakum diinakum seen diine ji ma jublu woon day mat na wa atmamtu alaykum ni'mati xéewal gi kon sotti na wa raditu lakum al islaama diina nii lislaam mel tey noonu yi laa ko bëggee maanaam noonee mu wàcce ci moom mu jottali ko ba mu àgg ca saxaaba ya ñi àndandoo di ko dund borom bi tabaraka wa taala nee na ko wa raditu lakumul islaam diina diine lislaam jii nii ngeen koy dunde tey noonu laa ko bëggee laay jooju ba muy wàcc ma nga wàcce bisub àjjuma ca béréb bu ñuy wax arafat ca màkka fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci aj gi nga xam ne ca la tàggoo ak xeet wi ca la tàggoo ak xeetu lislaam ndax delsiwaatul màkka gannaaw boo xamee ni jóge na ca aj googee lam ca teg tàggoo jóge àdduna bareetul kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu génne àdduna ñu xam ne li ñuy tudde wax yu dagg na wax yu mooy yàlla soxlaa jot li dara muy ñëw ci bindéef yi muy jël loola di ko jox mbindeef di ko wax ne ko jàllale ko moo xam da ko ko jox direct wala da ko jaarale ci malaaka loola amatul gannaaw bu fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge mooy yonent bi mujj ci yonent yi mooy ki mujj ci koo xam ne jur jibril da daan ñëw di ko seet si di ko indil mission bu jóge ci yàlla amaatul gannaawam desatul amatul wenn yoon amatul wenn yoon woo xam ne ci la ab jaam mën a jaar di wut ndigalul sunu borom tabarak ngërëmul sunu borom tabaraka wa taala lu dul li yàlla wàcce cib yonentam muy alquran ak li nga xam ne moom la yoonal jaarale ko ci làmmiñu yonentam sallallahu alayhi wa sallam ak i jëfam yoon wi jëm ci yàlla daal di siraatul mustaqim nga xam ne ku ca jaar mën nga am ngërëmul yàlla boo ko doon gàttal ci benn baat neel mooy njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njàngalem yonent bi mooy la ko yàlla jox mu jot li nu ko mën naa nekk ci alxuraan mën naa nekk ci sunna njàngalem yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy yoonu yiw ci képp koo xam ne bëgg na aw yiw fii ci àdduna ak fële ca àllaaxira ñëw na ci xadiisu al irbat ibnu saariya muy xadiis bu am solo irbat ibnu saariya kenn la ci saxaaba yi radiallahu anhum ajmain nee waazana rasulullahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون نانا امنا بن بس يونتبي صلى الله عليه واله وسلم وار ген واراتي غو خمني خول ييب جاق نان خول خلي جاق نان مانام خول يي توي نا نين كوي واخه واي نانا رانغو ني يتام ген نان كون اك واراتي gu jeexiital ci ñoom la woon nee na nu ne ko yow yonentu yàlla bi waaraate gii dey day nuroog waaraate kuy tàggoo daa mel ne da tàggoo de waaye dénk nu dara loonuy bàyyeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne uusikum bi taqwallah maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla kooku ci dénkaane yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam mujj dénkaane ci la bokk wa sam'i wa taa'ati ngeen di déggal seeni njiit seeni boroomi xam-xam yi leen di wommat jëmale leen ci siraatul mustaqim dee leen leen déggal seen njiit yi leen jiite ci wàllu àdduna it te di leen digal ndigal lu baax di leen tere lu bon na ngeen leen déggal ca loola mu teg ca ne fa innahu man yaish minkum képp koo xam ne ci yéen gudd nga fan danga dem ba gis ak juuyoo gu bare bare bari ci sama biir xeet wi fa sa yara ixtilaafan kathiran ku dund ci yéen dey danga dem ba gis ak juuyoo goo xam ne gu bari la nu ni def kon nee na fa aleykum bi sunnati maa ngi leen di dénk ngeen jàpp ci sama sunna maanaam jàpp leen ci lislaam ni ma leen ko jàngale woon jàpp leen ci lislaam ni ma leen ko jàngale woon bu leen ci yokk bu leen ci wàññi ndax yokk ak wàññi soppi la te ku soppi rekk jàdd nga te ku jàdd fa nga jëm kenn xamatul fu mu doon ku jàdd rekk danga soobu sóobu aw ñal te borom bi tabaraka wa taala nee na woon wa anna hada siraati mustaqiman neena yoon wi dafa jub xocc leer nañ ñi fattabiu na ngeen ci jaar dox wala tattabiu subula te bu leen topp ñal ya kon bu leen topp aw ñal jaar leen ci yoon wu leer wi nga xam ne moom la yonent yàlla bi xalloon mu ne jaar leen ci sama sunna ak sunnas alxulafaa urrachidun xulafaa urrachidun xam nañ leen moy ñi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tazkiyal na len bopam manam wax na ne ñom ci wa aljana lañ bok lolu moy la jitu ñaarel ba wax na ne ci njub dong ñet lañuy nek kon ko ci top ku nek mel na yaangi top yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam lolu ben benn fete wu ko kaw abou bakkar Omar Ousmane Ali ridwanullahi alayhim ajmain ñeent ñooñi ñoom la xeetu lislaam dëppoo ci ne ñoom ñooy alxulafa urrashidun wonewul nag ne kenn jubut seen gannaaw mu koy am na ñeneen ñu jub waaye njub gu àgg ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne topp leen ñii daal googa moom keneen amaatul garaat bu tol noonu kon ñooñu seen maqaama fa yàlla akub yonentam kawe na lool koo ci topp doo réer ndax koo ci topp ku ne yaa ngi topp yonentu bi yàlla bi aleyhi salaatu wassalaam kon xadis boobu boo ko settantalee da nga gis ne ak waaraate moo jiitu bi waaraate ñooñu jàq nañ seeni xoltooy ñu sàkku ndénkaan yàlla yonentu bi yàlla dénk leen ndénkaan loo xam ne mooy li gën ci ndénkaane yi ragal leen yàlla ragal yàlla mbokki jullit yi du mbubb mu ñuy sol du kaala gu ñu teg ci bopp du kurus gu ñuy yor du façon dàll yu ñuy sol dëgg la ragal yàlla bu nekkee ci xol bi ba àggal dana jeexital ci bitti ndax dana tënku ci li yonentu bi yàlla santaane te lam santaane am na ay jeexit ci bitti ci comportement colin waxin doxin jëfin yooyu yëpp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ciy feeñ te su fekkee ne ragal yàlla nga ca xol ba day mel ne ay xob yuy seqi ci bitti nit ñi di ca teg seen bët waaye nag doyul rek de loolee ca bitti rek doyul te fekk xol ba dara nekku ndax li ci bitti moom jëfandikoo ko yomb na nit ku sàggan mën naa jóge fële fexe ba bitteem mu sol colum nit ku yiw ni ma ko nga zahiruhu miskin boko ko gisee da ngay miskin mu toroxlu fa kanam yàlla la wa batinuhu sikkin te fekk la mu nëbb mooy la boo xam rek sa wala mu say kon bitip kese doyut bir ba day baax bir ci bitti ma kon moo tax mu dénk leen ragal kon ragal yàlla mooy fi'lu al ma'muur wa tarku al mahduur def lañ la digal te bàyyi lañ la tere te yàlla tax jaare ko ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw bu mu leen dénkee ragal yàlla jàngal na leen it loo xam ne suñ ko defee société bi jullit yi ak xeetu lislaam danañu am kattan danañ am doole danañ dund dundiin woo xam ne tabax bu dëgër moo ko sos mooy lan mooy nañuy toppante lam waxoon abu muusa al ak moas ba mu leen di yónni ne leen watataawaa na ngeen di toppante ku ci jëkk a gis xalaat bu jub na la sa moroom topp loola mooy tax ab àndandoo neex maanaam su fekkee ne asamu wa bi leen yonent bi jàngal muy di nangoo déggal ñi leen jiite te yàlla jiital leen fa ñu la jaarale nga nangu faa jaar lañu ñu lay digal nga nangu koo jëfe lañu lay tere nga nangu koo bàyyi moo xam njiiti umaraa u duniyaa lañ muy ay njiiti àdduna yoo xam ne yàlla dafa teg ci seen loxo nañuy saytoo dund gi walla dafa nekk al ulama muy waroom xam-xam yi nga xam ne li aju ci sa dundu diine yàlla da koo teg ci seeni loxo ñu war di jubbanti war di jàjji war di digle di tere ñooñu ñëpp des leen a war a déggal des leen a war a topp li féeg ñu ngi digle lu baax di tere lu bon loolu rek mooy tënk bi waaye nag kum ca mën a doon muy boroomub xam-xam muy buurub àdduna ku ci digle lu bon di la topp ku ci tere lu baax it diisula diisula topp diisul jëfe sa ndigal kon laa taa'ata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq kenn du topp mbindeef ci loo xam ne mooy yàlla da caa nekk gannaaw bi loola jàllee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal na leen ne ku fi gudd fan ci yéen day da nga gis ak tàqalikoo gu bari loolu borom bi tabaraka wa taala moo ko xamal ab yonentam yaakaar naa ni ñiy dund tey ci kaw suuf ci biir xeetu lislaam buñ xoolee danañ gis ne li fi nekk ci ak tàqalikoo danañ jàpp ne loolu musu munu fee yées day mel ne munu fee yées fenn fu nekk as kuréel nga fa fenn fu nekk as wootee nga fa fenn fu nekk ñu naan sun yëf ma nga fa ci biir diine ji te diine ji kenn amu ci yëf kenn amu ci kër baay kenn amu ci mbooloo diine ji diine yàlla la joo xam ne ab yonentam moo ko jotli foofa nekk fu nekk soo dee jàmbaar ci jëfe lañ la digal di jàmbaar ci bàyyi lañ la tere sellal ko te dëppalikook la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale kenn rawatu la ci diine jooji kilifa nga ci diine ji moo xam yëg nga ko wala yëgoo ko kon kuréel yi ak pàcc pàcc yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ko su loolu amee nag fan la jaar ba mucc bàyyiwu ko wax na ko ci biir xadis bi nee na fa aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafa arrachidin waxu leen ne problème dana am rek yam ca waaye da leen a jox itam solution bi nee na tàqalikoo gi su amee su ngeen ci bëggee mucc dellu leen ci li ma jàngale woon te Aboubacar ak Omar ak Ousmane ak Ali yu nekkoon ca ñeneen ñu bare nga ca woon waaye ñoo ñu ñoo doon bopp yi kon saafaras li xeet bi dund mooy dellu ci sunna amut nag beneen woote walla jëme ci ab kuréel wala kërug diine wala kër baayum nit boo xam ne mën nañoo woon nit ñi dajale leen ci ba xeet wi àndandoo bennoo ca loola li leen mën a bennale te ñépp bokk yam ca daal mooy li yàlla wàcce woon ci yonentam muy alquran ak sunna kon kuy woote wooteel foofa kuy jëf-jëfal ca loola kuy wax waxal ca loola kuy défendre défendre loola leneen lu dul loola soo ko yégee ak yëgoo ko yaa ngi tàqale xeet wi te xeet wi suñ tàqali ko danañ néew doole suñ néewee doole seeni i kàttan dana dem su seen kàttan demee seeni noon noonu dana leen not te loolu mooy li nga xam ne moom la xeetul islaam di dund tey yonent bi alayhi salaatu nee na woon xeet wi danañ tàqalikoo lu ëpp juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett kuréel yu bari yooyu nee na yépp sawara lañ jëm walla dana yeyoo nañ sawara ba mu des benn ñi ne ko waaw benn boobu des mooy ban mu ne man kaana ala misli ma ana alayhi alyawma wa ashaabi mooy ñi nekk ci ñi ñi jàpp ci li nga xam ne ci laa nekk tey man ak samay saxaaba ñooñu ñoo mucc kon yàlla nu yàlla boole ci ñi nga xam ne dana leen may fiq bu toll ne seen diine dañ koy jëlee ci li yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon ak i saxaabaam topp yonent bi boroom xam-xami lislaam juuyoo wuñ ci ne lu war la maanaam njàngaleem yonent bi jël ko mu doon sa diine boroom xam-xami lislaam musuñoo juuyoo ci ne warteef la maanaam nit ki amu ci choix نبكي أو من شوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم سيالا كم يننتم دقلي جلد بأمت الشواء من أمت اللمي تان تان نفهم موي يالا دقلي تان نفهم موي يالا ليالا تره تان نفهم موي يون ويننت بخط مجارجه lolé moy diineem li tax worom xam-xam yi juyo wuñ ci ne yonent bi des ko wara top moy alquranul karim li ci digle li ci digle ci ay aya ñi top yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari ga dafa dem dayo bari na lol suñ ko doon lim loolu rek waxuma ak khutba waye man nañu toog wer wala yari wer wala yett di khutba ci laay yi nga xamne dañuy digle ne top leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël leen am jangaleem mu doon seen diine nan ci jukki rek wama ataakumur rasul fa khuduhu yàlla nee lu leen yonent bi andil jël leen wama nahakum anhu fantahu lum leen tere bayi leen borom bi nee ya ayyuhalladhina amanu atiu allaha yen ñi gëm yàlla top leen yàlla واتيعوا الرسول توبلن اب يونتم واولي الامر منكم نين توب تام سيني نجيت فان تنازعتم في شيء سنين دمي بام ياغ نك نين خيتو سي دارا جويو نيني نيلا نيني نيلا نوني تف نانا فردوه دلو لينكو الى الله والرسول دلو لينكو سي تيرب يالا بي اك سنه يونت بي صلى الله عليه وسلم ان كنتم مؤمنين بالله واليوم الاخر سو فكني گم گن يالا گم الاخره ذلك خير واحسن تاويلا كون توب يالا اكو يونتم اك سين نجيت فوفو لا سين دوله نيك فلا سين دين يتم نيك دم نان بام ياغ ني جويو ما لي يونتم عليه الصلاه والسلام واخون تا گناو نسو گن جويو فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين fi borom bi neena fa in fi shay'in su fekke xecio ngeen wala ngeen juyoo farudduhu ila allah wa rasul delo len ko ci yàlla te moy delo ko ci téeréb yàlla bi wa rasul ngeen delo ko yonent bi te moy delo ko ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy am jàngaleem kon sa bu problème bi taxawé rek solution bi day taxaw ci wet gi juyoo am na ci alquran ak sunna mu jeex su ngeen ci delo juyoo ga jeex borom bi neena may yati'ir rasula ku topp yonent bi faqat ataa allah topp nga yàlla boo toppee yonent bi topp nga yàlla ndax yonent bi du digle lu yàlla wut du tere lu yàlla terewut borom bi nee na falaa wa rabbika laa yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum borom bi nee na mi ngi waat ne duñ mën a gëm ngëm gi doon guy am njariñ ngëm gi doon gu ñu accepté lu dul ne lépp lu aju ci seen mbirum diine dañ koy àttewoo jëmale ko ci yow lépp lu xew seen diggante ci lu mat a àttewu muy ak juuyoo muy werante muy lu mën a doon ngir ñu àttewu dañuy delsiwaat ci li nga jàngale summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayta su ko defee lépp luñ la wax ne lii la ci yonent bi jàngale ak nu mën a mel sa xol da cay sedd ngëm gi du mën a am lu dul saa bu jaaxle amee werante am na xuloo am na juyoo am na du dangay ngay dellu ci yonent bi nga ne nangu naa mu àtte ma lam fi indi woon bu la àttee sa xol féex ca sooy boo nga rafet njort ci sa ngëm yàlla waaye suñ ne la àtte yonent baa ngi nii nga am ca xol bu xaw a xat wala mu xaw a metti xamal ne loola eh, ca ngëm ga la aju moo tax mu ne summa laa yajidu fi anfusihim xarajan benn xat-xat mimma qadayta wa yusallimu taslima borom bi nee na wa man yushaqiqi rasula min baadi ma tabayana lahu lhuda képp koo xam ne da nga ŋaayoo ak yonent bi juuyoo ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam gannaaw boo xamee ne mbir ya leer na fi yow wa yattabi gayra sabili lmuminin mu jaar ci yoon woo xam ne bokkut ak yoon way yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xàlloon te muminuuna ye jaar ca ña ca jiitu di alxulafaa rachidun képp koo xam ne def na loolu borom bi nee na nu ma tawalla nee na danan ko fay lam yeyoo wa nuslihi jahannam wa saat nasira danan ko fay lam yeyoo ëllëg nu yóbbu ko jahannama mu jaaru nu yóbbu ko jahannama mu jaaru yàlla nu yàlla musal ci njaarul jahannam borom bi tabaraka wa taala nee na falyaxdar alladina yuxaalifuuna an amri ñi nga xam ne dañuy juuyoog ndigalul yonent bi nee na nañu wattandiku an tusibahum fitna nañu wattandiku fitna wàcc ci seen kaw aw yusibahum adabun alim wala mbugal mu metti wàcc ci seen kaw ci xadisu abi hurayra radiallahu taala anhu ci saxihu Bukhari yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee kullu ummati yadxuluuna aljanna sama xeet wépp danañ dugg àjjana illa man aba ludul dul ku lànk sama xeet wi ñëppay dugg àjjana ba mu des ku lànk ñu ne ko ah wa man yaba ya rasulallah yow yonent yàlla bi kan mooy lànk di bañ dugg mu ne man ataani man ataani daxalal janna ku ma topp dugg àjjana wa man asaani ku moy sama njàngale faqat aba nee na kooku lank na kon ki lank ne du dugg àjjana mooy ki lànk bañ a jël njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sooy ba mu jël njàngale mu ko neex nag ni moom laay topp waaye ginnaaw mooma wuute na ak njàngalem yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax xam ne moom lànk na يرنتب بعلي صلاة وسلام يعني كده فلول مولانك أنا سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه في حديث من بنتي صحيحين يرنتب بعلي صلاة وسلام نينا فمن رغب عن سنتي فليس مني كباي جناو سما سنة نينا بوكتو تشمان كون جناو أم جانغلام سوني مملاي أسكنويت أسكنوغا مم ويروت وخارنا في حديث ابن عمر نينا toroxte akuk suufe ñeel na képp koo xam ne jooyoo na ak samay ndigal moom yonente bi alayhi ay santaaneem akum njàngaleem ne na képp ku ko wan gannaaw toroxte ñeel na la fii ci àdduna ak ëllëg fële ci àllaaxira mbokki jullit yi li fi nekk ci ay firnde ak i dëleel ak i dalil ak i sukkandikukaay yoo xam ne ci bunt bi lay wax benn boo ci jëloon rekk doy na sëkk ngir jullit bi xam ne yàlla xottiwul ay yoon yu bari yu jëm ci ngërëmam yàlla wenn wenn yoon la xotti wu jëm ci ngërëmam mooy yoonu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yoon wi yonent bi jaaroon alxulafaa urashidun jaar ca saxaaba yi jaar ca waroom xam-xam yi jàpp ci alquran ak sunna jaar ca yoon woo wi mo jëm ci ngeerumul yàlla mo jëm ci aljana kum soob nak yoon wa ngok suubul jam rek ngay gis ak mucc aduna ak àllaaxira yoon la woo kuko won gannaaw alkande rek yàlla nu yàlla musal ci lolo fi ci aduna ak ci àllaaxira اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله